asalaamaaleykum ñoo ngi ziare ñëpp di leen wàcc seen wàccuwaay man la bëgg dañoo am lu ñu naqari am lu ñu métti trop parce que ay tappet ay ragal ay buqat bàyyi ba nit ñi tëdd di nelaw ngay daw di songu ay xam nga dem yoof di songu siège Ousmane Sonko su fekkee yow góor nga te da ngay dëggal sa bopp te li ngeen di woote dëgg la ci yéen bu leen bàyyi ba nit ñi tëdd da ngeen bàyyi digg bëccëg ngeen dem songu ngeen xool lan moo leen ci fekk ngeen xam ne ñi ànd ak Sonko nekkuñ ay ragal xoxatal yi ngeen di def nii ñu leen di yónni ngeen di ñëw di jéem a ay affaires yi loolu taxut sénégalais yi ragal taxut sénégalais yi dellu ginnaaw te maa ngi bàyyiloo xel bu baax na na gendarmerie police nañ jug wax ci lii nii parce que gis nga luy ram ci ñag ba la jëm waaw ñi ngi bay bayal loo xam ne nag gis nga bés bu ñuy amee place fañ koy bay bayal wallaahi dana indil réew mi ay jafe-jafe lan mooy ndeyu baayu ay nit ñëw ci kër jàmbur ñëw ci séesu jàmbur attaqué fa jël ay jaase caw ko ci ay siis yàqate fa yàq seen ordinateur yi lépp bàyyi ba nit ñi tëdd nag di nelaw ñu soog di ko def parce que loolu ñuy def ñoom xam nañ ay tappel lañ xam nañ ne ay ragal lañ parce que Macky Sall ñu ànd ak moom ay tappel lañ xam nga ñun duñ may kenn kenn kenn benn personne bu gën a ndaw muy tëb di dal ci kaw Ousmane Sonko wala di ko laal mayuñ ko kenn te képp koo xam ne ni xam nga jug nga pour def ko da jot xolu Sénégalais yi te Sénégalais yi dañuy jug dal sa kaw parce que Ousmane Sonko Sénégalais yi ñoo ko bëgg mu neex la mu naxadi la Sénégalais yi ñoo ko bëgg jeunesse bi ñoo ko bëgg waaw yii ngeen di def nii yëpp affaire a ragal la affaire a tiit la taxaw leen ngeen dëggal seen bopp moo gën ngeen di def nii nii di xam nga di jéem a xoxotalaate mais munu leen tax kenn ragal munu leen tax kenn dellu ginnaaw